am leer ba am na ah. waaw kon waaw kon sëñ dem waaw kon rafet na waaw yàlla am nañ ci yaakaar bu baax ndax lu tax ñu am ci yaakaar mooy ñi toog ñi ay kilifa lañ tey su ma melutoon na war a mel su ma leen wooyee duñ toog fii waaye gune moom boo nekkee ci biir mag cër rek ak la la war rek yow nag wax nga li nga bëgg ñoom it dégg nañ ca bëgg-bëgg xëy na suñ demee ba booba xol moom du fen parce que toujours wax naa ko naa ne nit ñëw na fi ñëwati na fi képp koo xam ne soxla na dara bu ñëwee day wax nga déglu ko rek may ko teggi mu wax ba pare bu demee ne yow yaay xool ki la soit ak ki nga jox sa xol nga wooteel ko waaw xay na ñu waxee na amna ziyagar bu baax waaw ndax tay buñu ne tay daru salam nga jóge ko euh, sama nijaay ji wax na ko saraxuli bu ko on sall bu sax buñ buñ and ak sang yi ni dañu kila laa bëgg nga jàppale ko war nañu mëna xusul xuus kon da nga am bëgg-bëgg lool mebeut ko yalla nako ko yàlla jox ta mu nekk lu gën ci yow barke rasulullah saa sam kontaan nañ bu baax deug yalla bu ko lu ci ñitté da nañ ko ci def parce que bi ma sëñ Ibrahima woowee wax ma